indi handicapé moteur la boo xam ni sama métier rek la yaakaaroon Latir Diaw Guèye laa tudd yoroon benn cantine ci Pétavin angle Jean Jaurès yàgg fa trop te avant ça bunker bi mu jàkkaarloo woon dépôt d'ordure la woon ab Ablaye Diop Matar xam na ci dara parce que moom ba mu nekk directeur SONES daan na fa aw di gis foofu nekk dépôt d'ordure kenn mësu faa soxlaa toog waaw benn ku ñuy wax ëmma jéen daan ma gis booba man aw ma sax cantine parasol laa yoroon di ci liggéey moo ma dimbale jox ma ma jënd ci cantine dégg nga mënuma est-ce que am nga foo koy teg mën ko ci dépôt d'ordure bële dinaa ko nettoyer ba mu set man dinaa ko fa teg di liggéey waaw am naa ay témoins oculaires ba ci aliba américain bi nekk bi nekkoon RTS Babacar Faram Biram Lo ñoom cawakan ñoom ñëpp xam nañ ci dara mais dañoo xëy un bon jour rek ci temps yi nga xam ni xalifa Sall taxaw ne ne day nettoyer dakaar bëggatu fee gis marchand ambulant te marchand ambulant yi man dem demoon nañu sax ba may euh, déranger parce que dañ ma ceinturé woon fi ma nekkoon espace la boo xam ne xataluma kenn mais ñoom dina ñëw ba ceinturé ma ba man xalifa Sall bi mu taxawee ne bëggatul a gis marchand ambulant ci mbedd yi tax man ma kontaan ci ba bi muy woote sax man dama ko doon ñaanal pour mu gagné waaw mais teewul nag am na ci ñoo xam ne ci suuf ñoom bëggunoo gis indi handicapé surtout boo xam ne mu ngi liggéey waaw koo xam ne yàgg na ma bëgg a jële mais toujours ay intervention major Dia bi nekkoon dégg nga DAU moom ci boppam sax ñëw na installé ma bokk ci installation bi ma installé foofu waaw comme fa Moussa bëgg a jëlee moom mooy taxaw imposé kooku bis bu mu réussir ba gàddu woon sama cantine sànni ji fourrière ba ma demee wax ko major ja dafa ñëw fourrière ab gendarme sax la fa fekk te ne kii ba dan maa xool ne kii moom moom cantine mu ne waaw dan ma delloo cantine bi immédiat dem recaser waat ma fa ma nekkoon ma continuer sama liggéey mais bi xalifa Sall nag gañee dégg nga te man dama bokk ci ñu ko doon ñaanal pour mu gañee dégg nga ba man ma am jàmm sama liggéey ñooñu ma daan yëkkati noo ñëw ne ma yaa ngi pare mbaa bi xalifa Sall gagné mbaa yaa ngi pare xam nga ne fii di nga fi jóge ma ne leen boo ma fi jógee rek yàlla la waaw mais teewul da nga ah bi Khalifa Sall gagné presque man la ñu mel ni dañ ma doon njëkkante daal pour jëlee ma fa te pourtant foofu laa doon gagné sama vie ma am benn aide social benn depuis daal Macky bi mu promettre da nga trois. Ah, ah, loi d'orientation sociale man ci la sama xel dal ndekete yow booba dégg nga am nañu ko mën a jéem a détruire mais loolu du loolu kenn mën ko détruire xëy na nag mën na noo détruire xëy na koo xam ni dégg nga ah, ku fragile la ko man mais pas dégg nga boobu acte parce que man maa ngi ñaan yàlla sax bés bu fi Macky di jóge na beneen APR toog na beneen candidat APR toog pour mën a génne soci social bi ne ci moom parce social socialiste nekk nekkul dégg nga comportement la te man vraiment affaire bi métti na ma trop trop trop trop trop ay lunettes laa doon liggéey foofu ay briquet ñëpp ma xam foofu ñëpp xam nga ne foo def depuis 1980 di xoslu di lal carton di kii ba am parasol di kii ba amet jéen dégg nga euh, yërëm ma moom moom vrai socialiste moom xam naa xolam moom dimbale ma ma am cantine boobu. fu ma ko teg moo ko jàqaloon te teg naa ko foo xam ne ay autorité àndoon nañ ci muy direct euh, ki nekkoon euh, DAU ki ma doon wax muy major Dia docteur Briquet leen ma daan wooyee foofu ah waaw ndax li may defar briquet mais pas n'importe quel briquet ay marque yu mag ay marque yu mag ay Dupont Cartier Flaminet Ronson marque yu mag daal yoo xam ne dégg nga moom ay réparation am 5000 loo ko may ñaare. waaw lu ne tam n'importe quelle monture lu lunette dañu koy jëlee ci magasin yi nga xam dañuy defaree weer ñooñu dañuy ñëw di ma indil ay montures yu damm ma leen di remettre à leur place ba mu fa jëlee léegi xanaa di xoole di taxawalu di xoole danga nga defuma dara dara te man nekkuma da nga koo xam ni da nga ah, dépendant la waaw waaw man ñoom mënuñu ma transformer mukk ah, ma nekk da nga un dépendant jamais waaw man dama daan def saa bu ma wàccee weekend bi bu ma wàccee damay ñëw xool famille bi ent def entretien yi seen affaire yi école seen dund seen tout bu léegi ni ma réewee njaboot gi xanaa nuy xoolante dama ci tiit léegi sax parce que gos yi léegi surtout boo yoree ay jigéen ñoo xam ni da nga di ngi commencé da kii seen bagak yu ma xamul ah ba léegi mënatoo leen a téye da ngay jékki rek nu dem ba doo xam ban heure nu ñëw parce que du nu lekk waaw te sama liggéey laa compté woon. mësuma am aide sociale gouvernement yaa ngi nii di ma dégg ba ci ba ci maison sociale bi nekk fii buntu dixième bi nekk fii bu handicapé yi benn yoon lan ma jox benn saaku ceeb war naa mat ay ñetti at saa bu ma fa demee naan ma góor gi ñëw nga góor gi lii góor gi lii te te ñoom ay indi handicapé lañu waroon teg foofu ñoon mooy xam luy handicapé mais ñooñu ay valide lañ fa teg yoo xam ne dégg nga noonu yu bëgg àdduna sax waaw handicap bi dama feebaroon nu yóbbu ma hôpital nu piqûre ma muy piqûre bu raté booba euh, ay trois ans li yaay wax daal ay trois ans laa amoon nag yooyu waaw waaw bi piqûre bi raté nag teewul da man dem naa ba yaakaar ni man parce que man sama handicap ba ma ko yëgee rek genre yu mel nii may teg métti dii la mais bu dul loolu yóbbulul ma dara dara leen ma yóbbulul waaw rien du tout doole bi na am nag kooku moom doole ci yàlla la mais li na may jaay man wax dëgg yàlla metti na ma trop nag parce que fi mu ne maa ngi nii defuma dara message bi may terminer daal mooy ku ma ci man di dimbale man ma jéem a def leneen parce que sama kër maa ngi faa ak espace boo xam ne lu bon bon mën naa fa élever ginaar mën naa fa élever am naa espace daal boo xam ni ku ma mënoon dimbale dégg nga man ba ma mën a euh, di def loolu nekk ci dara sax mu ma gën a dégg Ah, may toog nii di xoole nde foofa man yaakaaratuma ko yaakaaratuma ko parce que dem naa ba nga xam ni xoolal bi nu ma koy bi nu may def loolu booba maa ngi ci sama yaak 68 ans léegi maa ngi presque sama onze yaakaar naa waaw léegi damay noppalu parce que ñoom noo ma gaare masuma toog ma pour temps réewu chrétien yi liggéey naa fa dem naa Moravia dem naa Abidjan dem naa ah, Burkina Faso Abidjan ba fa George Wagne nekkee man fa ma daan liggéey nii ci wetu Escort Club avant muy lakk te te te Nabil Thioker deewe woon te bi ñuy wax Nabil Thioker mii foofu yëpp mën naa ko wat ni jullit laa kenn du ma jële ci tarixa euh, musulman mais nag li ma chrétien defal ak ak ak ak socialisme bi ne ci ñoom wax dëgg yàlla presque gisuma ko ci euh, jullit parce que ñi ma ko def bu sëriñ yi wootee ñu ngay gis seen wet nu toog ak seen kurus duñ wax mukk sëriñ yi dina def